ànd ak gumba di dox bëgg koo tegtal ba dox lu mat kilomètre yàlla day seet lam dox ànd ak moom benn xasab bu ca ne mu faye ko ca tuyaabay goreel ab jaam bokk na ci yu baax yi nga xam ne ëpp naa sàggane loo fekk ci yoon wi lu mën a lor kenn nga toppale ko ak di bale jàkka di ko setal di ko defar alxasan nee na mahrul xuuril ayni kansul masajidi wa imaratuha di bale jàkka di ko dundal di ko defar des ci amee canuk jigéeni ajana ya ba tey fexe ba jàkka ja nga di fa taal lu ko leeral ca waxtu wañ ko aajowoo noonu la mel ak defare nit ñi ba ñu juboo jàmm rek dox seen diggante yooyu yëpp yu baax la ñu koy boole ci albiro waaye ji baani danañu war ñoom ñaar yaa ax yow sama mbokk fi rahimi ci jege ñaale wa walidin ak waajur wala yantami ak doonte day askanu li shirkin jëm ci bokkaaleel yàlla dafa dellu ci asilatu ak albiru bëgg wax ne tajibu silatu rahimi wa yajibu albiru fil walid bu ñu nee sa mbokkum jullit mu ne war ngaa jokkoonteeg moom ngir yàlla bu ca jullit ba boolee nag doon sa mbokkum jegeñaale kon nga jokkoonteeg moom day soppiku waru gar du yemati ci sopp rek ba tey albiru yéene nit lu baax ak di ko ko defal kem sa kàttan bu ñu nee sopp nañ ko ci sa digganteeg bépp jullit bu dee nag sa digganteeg sa waajur day soppiku waru gar jokku bokk lu war la alxuraan da ko wax hadis wax ko boroom xam-xam yépp maase ci alxuraan nee na wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arxaam bu dee ci hadis man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyasil rahima bu dee ci ijmaax boroom xam-xam yépp maase nañ ci ne jokku bokk lu war la dagg ak bokk bàkkaar bu mag la teyit jam-jam la buy teye mat seere képp koo xam ne yàlla boole na leen ak bokk doon sax dafa laa dagg itam yow na nga jokk sa digganteeg moom ndax nee nañu kay jokku bokk mooy ka nga xam ne day fekk ku ko dagg bàyyi moomu dem jokk ko waaye nag ku jokk ak bokkam ak yow nga jokk sa bokk ak moom bu daggee nga dagg loolu jaay jëndante rek la dañuy wax naa laysal waasilu waasila man wasalahu wa innamal waasilu waasilu man qatahahu wa amma waasilu man wasalahu fa baa'i'un wa mushtarin wa hadha ma lam yatakabbar alayhi aw yastaxyi min nisbatihi ilayhi wa amma in istaxya aw takabbara fala yajibu bururuhu wala silatuhu sa mbokk nag bu dee réylu ci sa kaw rus sax ñu naa yaag moom yéen a bokk su boobaa nag kon mën ngaa jàmbure ci moom ndegam àgg na foofa topp nag ñaari waajur te mooy sopp leen ngir yàlla mi leen def ñu di ay waajuram te di leen waxal ak a defal lépp lu baax lu ñu ko digal te du lu yàlla aaye mu def ko lu ñu ko aaye te fekk it muy la yàlla aaye mu bàyyi ko loolu farata la waru gar la ci bépp jullit sunu boroom dafa dénkaane lool rafetal jëm ci ñaari waajur ba sësale ko ci jaamu yàlla ba mu ne wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sa borom daa digle ngeen wéetal ko jaamu ko moom rek digle itam nag ngeen rafetal jëm ci seen ñaari waajur bañu ko digalee itam mu rafetal jëm ci ñaari waajuram yépp itam ndeyam lañu ko gën a dénk ndax rek nu mu gën a ëppalee ca coono ba ak toppatoo ga ku ñu wax bax subnu xakim daa jële ci baayam baayam jële ci maama mu ne xultu yaa rasulallahi man abarru qaala ummaka qaala xultu suma man qaala ummaka qaala xultu suma man qaala ummaka qaala xultu suma man qaala abaaka tumma al aqraba fal aqrabu ne dama ne yonent bi ana kan laa war a topp sopp ko te di ko defal lu baax mu ne ma sa ndey ma ne ko ku ca topp mu baamwaat ne ma sa ndey ma ne ko ku ca topp mu baamwaat ne ma sa ndey nga xam ne kon ndey ji tudd na ko yetti yoon mu ne ko nag ku ma cay teg mu ne ko nag sa baay nga xam ne tudd na day ñetti yoon door a tudd nag baay bu mu tuddee baay nag mu teg ca gannaaw baay say mbokk nañ la gën a jege xantee rek na nga leen déggale noona di leen bëgg lu baax di leen defal lu baax di leen ko waxal te yàlla rek tax boo ñëwee ca saaru luqmaan ma nga naa anushkur lii wali walidayk sant ma te sant sa yaari waajur nga xam ne foofu waaw sax la ko atafe nga xam ne ku sant yàlla te santul yaari waajuram yàlla du nangu cant gam ko cant nee nañu am na ku laayal yonante bi jëf yi jan jëf moo ci gën mu ne ko xanaa julli ca ba waxtu way door a jot la ca topp nag mooy déggal sa yaari waajur topp leen rafetal sa diggante ak ñoom door caa teg nag jihaad mel ne kon mel ne kon topp yaari waajur moo gën jihaad àq njuréel moom dafa diis a diis ba nga xamee ne su waajur wa nekkee yéefar sax moom mu nekk jullit it du tey rek na koy sàmm bu baax a baax di ko toppatoo ngir yàlla mi awale njuréel ga seen diggante lu mën ci lu baax di ko ko waxal ak a defal te nag bu ko waajur wa yóbbaale mukk ca weddi ga mbaa moy ga ndax sun borom nee na wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutixhuma hadis ba it nee na laa taaxata lil maxluuqi fi maasiyatil xaaliq nga xam ne àgg na ci bu la digalee sax lu lënt da nga koy topp ca lu lënt la ndax topp ko lu war la te bàyyi lu lënt moom lu ñu sopp rek la bu génnee àdduna itam say boo nga farlu ci di ko ñaanal ak di ko saraxeel ndax jàpp nañ ne ñaanal sarax moom faaw rek mu àgg ca moom bu dee ci jàngal ko itam lu ñuy jàng ni ki alquran ba tey saye ba baril ko bari na wuute waaye wax ji gën a wóor mooy moom it dana ci jot te nga farlu bu baax ci képp ku amoon wëlëre ak sa baay rek wala sa yaay nga jéem a taxaw temm ci mottali wëlëre woowa képp ku amante woon ak ñoom jàmm rek nga taxaw temm ci mottali loola te yàlla rek tax ndax li nga wees woon ci addis bu mu ne inna min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abiyi ak ngir li ñu wax ne daa am benn waay bu bokk ci banu salamata ñëwoon ci yonante bi ne ko inna abawayya qad maata fahal baqiya min birrihima alayya shay qaala naam al istighfaru lahuma wa infaadu ahdihima wa ikraamu sadiqihima wa silatu rahimi allati la tuusalu illa bihima sama yaari waajur day faatu nañu ndax bi ma leen toppee bañ génn àdduna am na lu ma dese ci war leen a toppati ndax ba tey ñàkkut lu ma leen war a defal ci lu baax yonante bi ne ko ah kay dee leen sàkkul njëggal di wéyale kóllëre guñ amante woon ak ñeneen ku doonoon seen xarit nga di ko teral bokk gi nga xamee ne ci ñoom ñaar la ko yàlla jaarale mu dox sa digganteeg ñeneen nga jokk bokk googu su seetloo nag ne motali wutoon aqi waajur de te waajur ya génn nañu àdduna kon na farlu rekk ci li ñu waxoon léegi di leen sàkkul njëgal di leen bari la ñaanal te képp ku masa am ak ñoom wëlëre mu jéem a mottali wëlëre woowa ku doonoon seen xarit fu mu ko gis teral ko ndax xarit woo ko doxoon digganteem ak ay waajuram ba tey it des na ko daboo ci kaw guddi alxames nga julli ñaari ràkka gannaaw ba nga jullee timis ba noppi rakk bu ne nga jàng ca fatiha benn yoon kursi yu juróomi yoon qul huwallahu ahad juróomi yoon falaxik naasi bu ci ne juróomi yoon boo sëlmalee sàkku njëgal sa yaari waajur fukki yoon ak juróom julli ci yonante bi ba tey fukki yoon ak juróom fab tuyaaba jëpp nag féetale ko sa ñaari waajur hadis ba nee na doom day mënta fay waajur wa lu may mu fekkoon ka ni ab jaam buñ moom mu jënd ko goreel ko lañ yajisiya waladun waalidahu illa an yajidahu mamlukan fa yashtariyahu fa yu'tiqah nee nañu yonente yàlla yaqoob alayhi salaam dafa ñëwoon ci yuusuf doom joojee mu bëggan lool waaye yuusuf nag jógut ndax màggal yaqoob baayam yàlla wax yuusuf ne ko waaw da nga yëg sa bopp ba doo jóg ngir màggal sa baaya ne ko waat naa ci saa tedd nga ak saag màgg yow day bu ma génn ci sa ndigg benn yonante moo tax yuusuf am naag salira mi soxnaam soosee ay doomi doom waaye amu ci kenn kuñ naa ab yonante la yaa bay topp ñaari waajur rafetal jëm ci ñoom ngir yàlla dafa bari tuyaaba lool ba addis ba wax ne kuy rafetal digganteem ak ñaari waajuram ngir yàlla daal ak lu mën di def àjjan rek la jëm safaan ba nag mooy kay mooy ay waajuram ak lu mën di def rek moom du ko tax a dem àjjana sawara lay dem law alima allahu shay'an min alxuquqi adna min uffin lanaha han dhalik فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة نينا يالا دا وخان موسى نكو ku déggal ñaari waajuram daal àjjan rek laa koy nége ku ñàkk déggal ñaari waajuram nag sawara rek laa koy xaaroo ku déggal ñaari waajuram na def lu ko soob du dugg mukk sawara ku ñàkk déggal ñaari waajuram nag ak lu mën di def du tax mu dugg àjjana ndeyam nag dañoo tudd mooy ay waajur te wax nu mu doone bàkkaar bu mag a mag ak nu mën a yóbbu nit ca safaan ba warees na ko wutal ab takk-takk boo xam ne ci lañ koy xàmmee takk-takk bi nga xam ne ci la ñuy xàmmee ne doom ji mooy na waajuram ba na séentu la ko cee dal mooy rek mu teg ko loo xam ne buñ ko seetloo ci aaday foofee mu nekk lor ju diis bu ñu seet nag kenn ku ne ak waajuram ndax waajur yi dañuy wuute am ci ñu mën a dékku lor lool am ci ñu xat ay xol xajowuñ dara dara kon nañuy seet rek jëpp lor joo xam ne daal waa béréb ba jàpp nañ ko lor ju diis bu ko doom ji tegee waajuram rek ñu jàpp ñu jàpp ne mooy na waajur def na li ñuy wax dog waajur looloo tax nee nañu bu fekkoon ne ndey ji wala baay bi dane doomam faaw nga tàggoog sa soxna te soxna sa deful lenn luy tax ñu war a tàggoog moom su boobaa du ñu waral ca doom ji ne ko toppal say waajur bu leen toppal ca loola it bu ñu ko jàppee dog ay waajur ndax lu bare bare ci waajur yi ñoom seen bopp ñooy am seen melo ñàkk yaatu ñàkk xajoo soxna seen doom ba taxawte mu ci ne doom ja na tàggoog soxnaam su boobaa nag dañuy jàpp ne ci yoon moom doom ja ñàkk topp seen digal tàggoog soxnaam du dokk ñaari waajur déedéet na téye soxnaam rek te jéem ko wor ak ay waajuram taxe rek ñu juboo sara bi wax naa wa daabitul xuquuqi ala ma qaalahu baadu muxaqiqi lfuqahaai an yafaala al ibnu maxa waalidihi maa yataaddaa bihi taaddiyan laysa bilhayini binisbati ila alxuruf مما حده أهله يتأذى به وأما ما لا يتأذى به عرفا فليس حقوقا وإن تأذى به الوالد كثيرا بدليل أنه لو أمر ولده بنحو فراق زوجته لم تلزمه طاعته وإن تأذى بذلك كثيرا ñoom nag dañu ne rekk bu waajur wi diggalee doomam ne ko tàggoo lak sa soxna si duñ waral ci doom ji ne ko defal li sa waajur wax tàggoog sa soxna déedéet doonte sax waajur wa ma ngay loroo ca mbir moomee lool ju mette mette ju diis a diis du tax ñu wax doom ji ne ko tàggoo lak sa soxna ngir topp sa waajur waaye daal daa mel ne su fekkee ne seet nañu ne soxna si ci boppam moo dëng lool lépp rek ci moom la bàyyi ko waaye waajur ya du ca ñoom sababoo rek moom doom ja mu tàggoog soxnaam soosee te def ko rek ngir sàkku ca ngërëmal yàlla ndegam mënta wëlbati soxna si ca na mu mel te xam ne ni lépp mooma ay waajuram defuñ ca dara te waajur ya ñam cay tegoo lor ju méttee métti daal mel na ne tàggug soxna sa te yàlla tax mooy gën ca doom ja wa minhu bokk na ci teggin yu fes yi tarbiyatuka sag yar al awlaada doom ya li koy yenaaloo ngir ñu am ba adaxaa ci gannaawam ar rachada jub ga bokk na ci teggin yu fes yi bu la yàlla dénkee doom nga sant yàlla te yar ko yaru lislaam bu rafet rafet sante ko yàlla dañuy wax ni sax ci booy takk soxna ngay waajal njaboot gu baax fexe ba takk soxna soo xam ne moom ci boppam ku baax la te bokk ci ñu baax ndax kat bokk na ci ak ji nga xam ne baay amel na ko doom ja mooy tànn yaayam ba bañ a takk soxna soo xam ne bu ci amee doom dañuy reetaane doom ja ne ko yow daal diwooyu sa yaay rek kon bu mu takk soxna soo xam ne bu ci amee doom dañuy reetaan doom ja ngir yaay ja bu doom ji door judd rek na nodd ca nopp ndeyjoor ba liqaam ca nopp càmmoñ ba ndax dañ ne ku def loolu xale boobee lu yàgg-yàgg rabu aay ak yu demee noonu du ko lor mukk-mukk ba tey waajur wu ne moo warlu doom ja tudde ko turu baax a baax turu rafet rafet abdullah abdurahman abdu nangam yooyu bokk na ci tur yiñ gën a sopp ak turi yonante yépp rawante ne turu sunu yonante muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbaa turi ay sahabaam wala turi gaa yu baax yi ci des bu dee jigéen ba tey noonu mu tudde ko turu jigéen ju baax ci ñi fi jaaroon te gëm yàlla tàmbalee ci kaw ba ci suuf rek kum ko ci tudde mu baax waaye daal na rafetal tur wa ndegam nag takk na soxna su baax am ca doom tudde ko tur wu rafet na taxaw temm ci bu matee jàng mu jàngal ko ba mu xam la mu war a xam ci diine ndax nee nañu wa warada annahu laa yalqa llaha alxabdu bi zambin a'zama min jahalati ahli sàggane kenn ci sa njaboot daal ba umpale diineem bakaar bañ cay jële amul benn bu ko gën a rëy bu jaam bi war a ragal buy taseeg boroomam fu mu toll nag nay bàyyi ci xelam ne gone kat kóolute la gu yàlla teg ci loxoy yaari waajuram waajur nag war nay bàyyi xel ne gone kat bu ko yàlla indi da koy booleeg xol bu set wecc nga xam nangu na ji ca lu baax suuxat ko mu màgg xale ba di nit ku baax ku bari njariñ ku taxaw ci la yàlla gërëm waaye bu ko sàgganee nag mën naa mu yàqu yaxeet alaku moom ci boppam alagaale ay waajuram ba addis ba wax ni sax képp ku gane àdduna rek day indiwaale bind bu sell te mooy ku ko waajal dana gëm yàlla rafetal gëm ga rafetal topp ga ku ko sàggane nag lépp yawa xam ne kon yaari waajuram ñoo koy soppi majoos wala yahood mbaa nasaraan xolub gone wurus la wu sell wu set wecc woo xam ne nangu na nga ji ca lépp lu baax soo ci jiyee rek lu baax teel koo xamal lu baax mu sosu ci lu baax màgg ca làggi ja day daal di texe àdduna alaxira yaari waajuram ame ca tuyaaba ju ëpp wut ame ca texeg teeg ëllëg bu ko ay waajuram négligé nag mën na caa jaare yàqu yaxeet alk ba noppi alagaale leen ñoom ñaari waajur yi ñu gàddu ca bakkaar bu rëy rëy wa hakasa liki nii iyaadatul maridi seet su demee ba mën a wax rekk na ko daldi waxloo laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam te xamal ko itam li baat boobu di tekki xamal ko ne ko maxnaam baat boobu kat mooy amul benn buur boo xam ne jaamu ko day taxa jariñu faw faw ñàkk koo jaamu it di taxa loru faw faw ku may yàlla yàlla képp mooy buur boobu ne ko it amul jenn jëmm ju sell joo xam ne moom ci boppam daadoolu ci boppam sëkk aajowul kenn mbaa lenn te kenn ku ne ak lenn lu ne aajowoon a jëm si ci moom dara mënta dem wan ko gannaaw ba tey ku dul yàlla yàlla rek mel noonu yàlla rek kay yàlla ne ko nag bi nga xamee ni moom jëmmam doo ko mën a gis ci say bët yable na ndaw loo xam ne mooy wax la mu bëgg ñu def ko ak la mu ne bu ko kenn def ndawam loolu nag moo di muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ay ndaw yu ko jiitu woon nag waaye moom moom la mu jëyoon ni te mooy nekk ndawam ba faw faw amul keneen kuy dikk ci gannaawam doon ndawul yàlla mu teel koo jàngal nag fatiha ak qul huwallahu ahad ak falaqeek naasi ndax bu dee julli man leen a jullee ba tey mu teel koo jàngal ayatul kursi yi ndax dañ ne mooy laaya ji gën a màgg ci alquran te it boo ko jàngee benn yoon day mel ne jàng nga junniy laaya jamono ya mu tolloo ci ndale noonee nag nga xam ne dana di jooy sax lu mëtta jooy waaye nag loolaay ab tolluwaayam moo tax sopp nañu bu dee jooy rek nga nax ko ba xolom sedd mu noppi ndax hadis ba dane man baka lahu sabiyun fa ardaahu xataa sakata aataahu llahu min aljannati xataa yarda ku ab xaleem di jooy mu nax ko ba xolam sedd ba mu noppi yàlla jox koo jox ci àjjana moom itam ba xolam sedd daañu sopp it yooye jamono saa yu ñu àggee ci korite mbaa tabaski nga wutal ko lu rafet mu sol ndax la addis ba ne man zayyana sabiyan yawmal iid zayyanahu llahu yawmal xardil akbar ku waajal gone waajtaay wu rafet ci bisub korite ak tabaski bu bis pencee ba kenn ku ne dugg ci waajtaayu jëfam ju sell yàlla faye la waajal la waajtaay wu rafet a rafet danañu taamu lool itam mu xër ci di bégal gone yi taamu nañu kenn ku ne xër ci bégal gone yépp gone jullit ñi rawante na ay gone yi boppam ndax la addis ba ne àjjana am na fa bunt bu ñuy tuddee baabul farax buntu mbégte mu ne moom nag ku dul bégal gone yi rek doo ca dugg ña daa bégal gone yi dong ñoo cay dugg mooy lil jannati baabun yuqaalu lahu baabul farax laa yadxuluhu illa man faraxa sibyaan nee nañu addis bi taxoon na boroom dëkk bii di boroom daarul mooti daana xir lool ci bégal gone yi ñu taamu lool it boo tukkee bay ñibbisi fexe ba indiwaaleel gone yi sori ca boo ca boole mag ña itam mu gën a baax loo defee ne rek boo ko indee ñu bëgg ci nga fexe ba indiwaale ko kem sa kàttan moo tax addis ba di wax ne ida qadima ahadukum min safar fal yuhdi ila ahlihi walaw xajara kenn ci yéen bu bàyyi ko ci tukki di ñibbisi na andi waaleel sërica waa këram doonte aw doj la maanaam daal sërica bu mu ci xeeb dara lu man rek na ko andiwaale sërica moom daal loo defee ne rek boo ñu ko andiwalee ñu bëgg ca na nga leen ko andiwaaleel ndax nga am ngëneel li addis boobu wax te mooy bégal gone yi ba bokk ci ñuy dugg ca buntub àjjana boobee nga xam ne ku daawul bégal gone yi doo ca dugg bëgg na ñu itam mu farlu ci buñ ko nee sa soxna yeweku na mu ne góor la am jigéen ñu ne ko jigéen la mu bég ca na muy bégee ci buñ ko ne woon góor la ndax ci ceddo ga njëkk lislaam dañoo bañoon lool doom bu jigéen